ñi nekk ci kaso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi déddu àdduna suñu borom xar leen daajane fi ndaw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la matinée sportive et le Baba Show l' actualité en continu actualité ñu fas yéene waxtaanee Edouard Diol ko moom mi da ko rek mel ni bi nga xam nag daal nañ koy nominé du côté de l'Arabie Saoudite championnat saoudien mais également Boulaye Boulaye Dia bi daal di indi ay nouvelles jëm ci li nga xam mooy blessure am lépp ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak yéen laata boobu nag mbokki sénégalais yi li nga xam ne gars yi mooy donc communiqué jëm ci li nga xam ne nag mooy donc Bon, sénégalais yi nga vous aussi mo nekk ci Paris ñu daal di dem nga donc consulat yi dem carte électorale. xool ñu ngi ci fichier yi tout waajal élection yi comme ñëpp ah, ku nekk nga faral ak fa nga bok di koy mais aussi gars yi a image la leen di qu'est-ce que représente cette image pour vous qui nga xam ne moo Fariga Khalilou Fadiga ak Sadio Mané Fadiga demoon seeti également Sadio Mané sur inauguration qui nga xam ne donc lii stade bi muy daal di teg loolu yëpp ñu fas ci mais aussi Vitor Roque qui vient rejoindre le contingent de joueurs brésiliens y a du côté de FC Barcelone se ngeen ko y a eu Romario y a eu Ronaldo il y a eu euh, Grivaldo, euh, Ronaldinho Neymar aujourd'hui Vitor Roque mais également joueurs yi nominés pour li nga xam donc Liga bi mouvement Habib yi meilleur joueur de la Liga comme toujours ah temps moom il nous habitue ay yéen ki nga xam ne mooy donc kii euh, di euh, donc Bellingham mi ngi ci Kubo aussi mi ngi ci.

il ñaar fukk ak juróomi simili de la je vais jouer screenard. mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain le défenseur croate blessé Gaï presque saison bien, d'autres jouer hein, presque presque hein. donc fini. Skriniar est blessé donc Paris Saint-Germain heureusement ba ki nga xam défenseur brésilien bi y sinon un hein. Guimarães aussi gars il fait partie des priorités du Parc des Princes au niveau du milieu de terrain donc Paris Saint-Germain est renforcé milieu de terrain mais Paris Saint-Germain dañu dama xamul seen euh, ñom sen recrutement yi démé quoi a am ngeen ay Xavi Simons ak yëpp ñi ngi fi ñu ngi fi ñu war a un qu'est-ce que vous allez faire de bu ñu ñëwee ki nga Tino de il va porter le numéro 15 du côté donc des Canaries de Nantes à abalé n'ko Lyon moo leen ko daal ba saison bi jeex ki nga donc Kade Wéré pendant ce temps aussi Frimpong ah moom jamono ji daal gars yi ah, waa Bayern Leverkusen nee nañ jaayu ñu ah jaayaatuñu jaayaatuñu notamment ci weeru janvier bi moom nag ah, clause libératoire am 40 millions la mois de juin daal ku bëgg a jënd di nga mën a ñëw mais jamono ji daal Leverkusen nee nañ jaay ko jaay ah benn Valverde ah 500e match en tant qu'entraîneur du côté de la Liga Valverde ancien entraîneur du FC Barcelone ah, donc ñu ngi nii lu mooy 500 cent Mathieu, yoo qui euh, entraîneur ah, di Edouard ñol ko bi meilleur joueur gardien du mois donc également du côté de l'Arabie Saoudite mom lañ ko ah. il a fait donc euh, euh, en tout cas il a été exceptionnel Ouais. Il a enchaîné avec clean sheet, hein, machallah, hein. il est actuellement donc dans les 9 clean sheets, mais aussi il est exceptionnel. Il revient au niveau de l'équipe nationale en étant en forme. Confiance du donc l'Olinian, concurrence bonheur, un jour en forme, c'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce qu'on veut de nos joueurs. Malheureusement, 5 ans, donc du coup, de la Mingini, CAF Dali, le Yoko pour l'Ingham, donc euh, le prix Mujaheren qui Coupe d'Afrique, qui gagnait gars. donc le taux 4 milliards, gagne, donc de Français, CFA, l'Unitoftal 193 millions.

wóorumul joué ko mais dans nee pour l'instant, instant daal vélo lay def donc Boulaye a à presque hein, une semaine moitié ci des presque ci Coupe la Afrique daal di tàmbale gars yi nag information yi ñu leen bëggoon hein, C'est jox toujours un plaisir de vous servir la nga xalaat ci Boulaye wax na donc ça va aller Edouard Mendy également ak forme du moment wuy leen di la wuy leen abonné on avance ensemble dans la magie des sportifs de Baba Show bu baaxee ci la bonne suñu la